ñu ñëwaat ak yéen seen série yi xaalisoo coow li coow li yëpp kenn rek moom moo si perdant mooy ki nga xamante moo nekk Boy Nandy te muy suñu livreur bi ndax mun nañu nag euh, plan bi nga xamante ne moom la tegoon ngi rek daal di dugg si famille bi nar naa foire à cause de li nga xamante ne Omar moom la créé si gàll sama gars yi ñun ñëpp xamoon nañ kii di euh, Boy Nandy lenn rek la bëggoon muy nu mu amee soxna si kër gi pour rek paa bi daal di koy jàppale si ay projet utal ko liggéey ba nga xamante ne wàllum livraison bi dina si génn mais nag mun nañ ni euh, kii di yee euh, Omar daal di nay buux nag euh, soxna si ba nag gars yi di laam-laame ndax ëmb bi yàqu nag yàquwul mais nag sama gars yi mun nañ ëmb bi si yàqoon nag kii di yee booy bi dina retourné waat à zéro dina nag yàq plan yëpp yu mu tegoon ngir rek daal di yow dugg si gaale bi sama gars yi suñ jugee foofu ñuy dem directement si gaale bi mun nañu nag kër as bi nag nu mu demee doy na waa trop ndax soo xoolee di di koy menacé ba pare nag euh, xotti photo yaayam loolu nag moom moo daal di poussé Omar ba mu réactionné woo comme ça mun nañu jëjaa sax dafa daal di jommi si réaction kii di euh, Omar mais nag euh, kii di Omar nan la nar a ba génn si problème bi nan la nar a ba seet si problème bi xam que ni carrément nekkul rabam yaa ñëw mais plutôt mère bàyyi rabam yi ba pare moo tax mu am bi lay réaction nee na sama gars yi ñu ñëpp gis nañ mère bi nu mu nekkee di toroxal doomu jàmbur bi si kër gi gis nañ nu mu nekkee dootu ko weddati mais nag est-ce que nekkul loolu noonu nag euh, li nga xam te moo nekk caatam bi moom lay këpp ndax euh, jëjaa moom yaakaar naa defal na yàlla ba pare comme nag yàlla du ko mos a teg lu métti mais plutôt nag doomam ji nga xamante ne moom la mère bi gën a bëgg teg ko foo xamante ne tegu fa kenn yaakaar naa nak euh, dina am déception bu rëy si boobu lay doom mais nag sama gars yi ça va sauver ba tax na dañuy patienter nag xaar ba lii di épisode 16 bi daal di génn ñu xool nag nan la kii di As nar a réglé bile gàllam bu jaxasoo bii nii ça va suufee moo tax di leen wax dig daje ba ci beneen vidéo jaa ngeen jëf.